سنوات تدرس جميع المنهج الإنجليزي في المدارس الإنجليزية نينا جامعنا بو باسي أدني باسي دان دون جيس ليك وليك سن بوغي جيل خالصا يوبو كتي عربي سكولي ñu naan la xay yow daara nga dem di jàng daara ñu naan ko daara daal di ko di ko xeebante di ko def sa mu nekk loo xam ne ñaawalante la léegoo le nga gis kun jël sa di la yóbbu ci tahfidul quran ñu ne xay kooku daara la mooy jàng nga gis ñoom seen biir suñ dajee sax ñu naan kii déedéet ki nekk school kii daal la mooy dem mu ne mu ngi leen di bàyyiloo xel ne leen jël leen seen doom yi yëpp ngeen yóbbu leen ci arabi school si ndax fu mu nekk nii rawante bi amul fenn li ñoo jàng ci arabi school yi sax duñ ko jàng ci english school si di nga fa jàng sa diine di nga fa xamee sa borom di nga fa xamee sa morom di nga fa xamee ak waajur ba pare di nga fa xamee tamit sa àdduna ndax mbolé li ñoy jàng ci arabe ci english school yi ñu ngi koy jàng ci arabe school yi kon way amna lo xamné ñu ngi koy jàng ci arabe school té min duñ ko né jàng ci english school kon jël leen seen doom yi anta jullit lañ ñun ñëpp ay doomi jullit lañ am nañ leen jël dugal leen ci arabe school ñu jàng seen diine ba bari jàngale seen aduna dinañ jërëñu ci aduna jërëñu allah àllaaxira insha allah laysa hunaka farqun bayna al madrasatayn aw bayna al qismayn ولكن الفرق هنا يذهب إلى المدرسة الإسلامية تدرس الإنجليزية ثم تدرس علوم الدين والشريعة الإسلامية فهذه فائدة أخرى لمن أراد أن يتعلم القسمين موني مون جيل سا دوم بيغا يوبو ار انجليش سكول مو جان مون جيل سا دوم غا يوبو عربي سكول مو جان واي انا ديفرين بي انا لان موي اوبورتونيتي بيغا خامني دي نكو ام مو دي ن بو ديمي تي عربي سكول بي dina mun english dina jàng mboolem loo xam ne dinañ ko jàng ba pare tamit bokk ci tamit dina jàng diineem ba pare dina xam diineem nee na lii yëpp boo ko gisee ngeneen bi fu mooy dellu mooy suñ président bi mooy président Yahya Alhaji AJJ Jammeh nga xam ne moom guddi ak bëccëg lu mooy gis mooy islam dëgër na ci eh, eh, Gambia jullit ñi am na seen bopp ci Gambia kenn ku nekk di xam sa diine di nga xam alquran di nga mën a jaamu yàlla mu ne su ngeen gisee school arabe school yi tey nuñ mel ak niñ taxawee a niñ dee jàngalee mu ne melutoon ci nguuram la am moo tax keroog rek mu ngi am benn meeting boo xam ne jël na three hours waaye government bi ñu ngee sant bu baax a baax arabe school yi sax naka la xale yi yaroo foofu. ak naka la xale yi di xamee seen diine naka la xamee xale yi di xamee seen adduna mu ne loolu nag bëriwut ci réew yoo xam ne di nga dem nga fekk ko foofu nga gis ne président bi ci boppam dafa ñëw di ñaax nit ñi nañ dem jàng islam nañ dem dugati arabi school yi muy taxaw di jàppale arabi school yi te government bi nee na sax dinañ gën a yokk seen dimbal ci arabi school yi bañ gis ne arabi school yi mbooleem lu english school yi am dinañ ko am te loolu nag kon ngëneel bu màgg la ana fan la dellu ci rais Yaaya Jammeh kon ñu ngi koy ñaanal di ko sant di ko gërëm walamma jaa Muusaa li miiqaatinaa wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arnii anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله كون نيو مبمبا بوكم كي دون جالني لغي dalil la nga xam ne Cheikh Issa Diawara ala kulli xaalin dem na kéemtalaay kattanam kii benn la si doomam nga xam ne ni mokkal na alquran fa jazahullahu anna kulla xayr. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا امكثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim barakallahu fi li gën a doy papa daf leen indi si Amerika nga gis ne yar sa xale nu mu amin saña bismillahir يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا قاتلوا الذين